moom nag dañ ko namoon a namoon xaar ko si mais golden depuis golden. waa gis nga de mais incha allah léegi mu ñëw moom xam naa ni gars yaa ngi koy xaar mais léegi mu ñëw. <laughs> tey nga ñëw ci projection film premier épisode bu retour nan nga gisee série bi déjà. xanaa am comme d'habitude ah fierté bu baax ci euh, les euh, c'est comment on va dire Evan Prod ndax à chaque fois dañuy nekk ci innovation je pense que boo gisee costume yi euh, boo gisee histoire bi boo gisee acteur yi di nga xam ne vraiment jël nañ temps pour liggéey ko donc vraiment très très fier et puis di xaar bu baax nag suite épisode yi incha allah ñu xàmmee la nag ci yow yamoo Sénégal ak actrice bi buy voyage nga joué nga série yu bari yoo xam ne série africaine la euh, nan nga gisee est-ce que yaakaar nga ne série bi mën nañ ko exporter bu baax bu baax déjà parce que dafa original je pense que niroowul ak dara lu fi mës sa am euh, rien que loolu chance la et puis surtout nag le talent est vraiment là donc euh, je crois que lii moom mën na nekk sax série Netflix incha allah loolu lañ leen di ñaanal. gis nañ ne gagné nga prix nag récemment prix de reconnaissance actrice boo xam ne na Sénégal fierté nga lan nga gisee. loolu nag dafa nekkoon surprise dafa naa bu gën a neex ci année bi vraiment euh, parce que comme je le disais c'est la première fois may recevoir prix fii si sama dëkk <laughs> recevoir naa koy feneen mais euh, ça fait toujours plaisir ñu ñu ñu reconnaître sa liggéey euh, comme on dit euh, waaw góor day tax nit gën a sawar gën a euh, bañ a découragé gën a am jom e xam ne tamit nit ñaa ngi bàyyi xel si li ngay def donc vraiment di si kontaan bu baax et puis gis naa tamit ni si nit ñi taxawoo kontaan si vraiment di leen di leen ko delloo comme li ma la wax ñëpp la xam à l'extérieur joué nga film yu bari ban message ngay lancer jeune actrice yi surtout bëgg dugg ci ci milieu cinéma bi te amuñu ci expérience li ma leen di wax déjà mooy ñu am plan de carrière plan de carrière mooy nga xam lan moo la dugal si li nga bëgg a def est-ce que juste feeñ la parce que bu fekkante ne feeñ la je crois que moo gën a yomb mais bu fekkante ne da nga ko bëgg a def métier métier mooy loo xam ne dañ siy dund euh, di si faj say soxla di si di si def ay projet ñu am plan de carrière euh, ñuy jéem a formé wu formé wu jéem a jéem a ibbeeku euh, bañ a yem juste si li ñuy gis si télé bi mais jéem a utiliser même Google ak yu mel noonu franchement euh, mooy loolu daal cultiver wu et puis jàng. waaw lan la mën a def ñoom ba jouer ci yeneen série comme yow yi nga jouer ci. je crois que cinéma nag lii tax mu mu mu xaaw a spécial euh, question souvent de chance la. parce que voilà yenn saay euh, xëy na di nga correspondre ak dara mais euh, soit dañuy soxla ku xees wala ku ñuul wala ku am âge bi wala ku am donc attente bi dafay bëri souvent moo tax euh, je conseil aussi jéem am beneen activité boo xamante ne du cinéma comme ça dalay permettre yow sa xel dina xaaw dal tuuti et puis en attendant ngay gis ay projet et pourquoi pas comme ni ko suñu mbokk anglophone yi di defee initier seen bopp ay projet et ce que langage bi tamit du poser problème de bi peut-être que am na solo booy dem à l'étranger mais je crois que ñun série yi nga xamante ne moo gën a jaay image du Sénégal ce sont des séries faites en wolof qu'on parle des séries de Evan Prod wala d'autres parce que dafay fekk nit ki mi ngi nekk à l'aise ci langue am euh, américains yi anglais rek la ñuy wax et après dañ koy doubler wala ñu si sous-titrer ko je pense que li ëpp solo ci looy def mooy nga xarañ ci franchement euh, bañ a def tâtonnement euh, di jéem a xool ñi nga xamante ne ñoo ci gën a avancé lan mooy seeni technique c'est surtout ça travailler travailler travailler loolu daal mooy secret bi. merci beaucoup mais non yàggatul dara incha allah. maa leen ko promettre <laughs> waaw <laughs> merci.